Touba Alieu jàpp HLM askan wu fay féete gannaaw ay at yu bari ñuy dund ay jafe-jafe ñeel ñàkk kaaraange te la ko waral di ñàkk ay làmp ci seen mbedd yi tax na nag lu mat weer ci ginnaaw ndaw yi wàccoon ci mbedd mi ngir ñaxtu loolu ba joxoñ ci baaramu tuma mairie bu Touba gannaaw loolu nag ci la ñu gis nag mbir mu leen bett jékki-jékki nag ñu gis ay làmp yoo xam ne ni dañoo bàyyi mbedd ya samp ña ci ñaari buntu kër yoo xam ne ni jàpp nañ ne ay borom barke ñoo ko moom looloo tax na nag ndaw ñi nga xam ne nii naka jekk duñ dañ mukk di kaas ngir seen gox bi jëm kanam delloo buum ca booy booy ba dajewaat nag ngir ñaawlu lii naqarlu ko jébaane ko. dañoo jékki-jékki am mbetteel ndax gis ngeen ñi fan yi ci réseaux sociaux yi ñuy dénoncé ak lëndëm maanaam manque de sécurité boo xam ne am na ci diggante allié ak aslem ñu koy dénoncé ko ku xam manque de sécurité nag xam ne ñàkk éclairage moo ciy jiitu parce que ku gis euh, Daaru Xuddoos ba allié gis nañ ne lampadaire yi nga xam ne gouvernement bi dugal na ko fi dara tàkk fi benn lamp nekku fi ci moment boobu nag ñu nekk di dund lëndëm googu di dundu insécurité sàcc yi bari fi agression bari fi ñu jékki-jékki gis ay lamp ci ay ñaari buntu kër yoo xam ne ni leer nañu ne loxo bu gudd moo ko fa dugal ñun loolu la ñuy ñaawloo parce que dañu jàpp ne lii nii alalu ñëpp la te lu ñëpp bokk nag ñëpp ci war a yem loolu moo ñu tax a taxaw fii ñun askanu asalem ak allié di ko dénoncé. ñu toog ba tey lampadaire yi nga xam ne état bi dugaloon nañu fi ñu gis ne mi ngi dox ci dëkk bi ñu yaakaar ne allié dana ci am ñu ci déggandeem ba mu yàgg ñu gis ko ci mbedd yoo xamante ne nii bàyyi fi nga xamante ni moo ko gën a yitte woo ay buntu kër la sax maa wax mbedd mais ay buntu kër la mais ci mbedd yu mag la waaye xam naa nag kon ni ko sama taal mi ay borom yi doole xaj na seen loxo mën a yegg ba indi ko fi ñoo ko def wala ñu nekk ay borom barke te loolu it metti nañu mais li ñu gën a metti danoo jekk-jekk gis lampadaire yi si buntu kër ñu yaakaar na lépp loo xamante ne ñu ñëpp ñoo ko bokk li ñëpp bokk dañ koy séddoo kenn ko tong-tong te dëkk bi dafa bari leen fii tong-tong lamp yi lamp askan du lamp ma samb lamp ma demb ñaari junni lamp la fi Touba am si première phase bi deuxième phase bi gars yi séddoo te ñëw a ñëwagut léegi ñu xol fu mu war a nekk farat ñu bàyyi ko dem fi nga xamante ne ak kër bàyyi xoolal xoolal mbedd yi mu lëndëm gis nañ seen bopp. mu nekk mbir moo xam ne nii nag biñ ko nemmeekoo jokkoo ak kenn ci boroom kër yi waaye buñ sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci askanu Aliya jàpp HLM ne na kët lamp yi dañ ko ko jaay. ñaata at ñett at ñeent at ñuy jox ay lampe mun ñu ko am ñu xëy di ko fekk ci ay buntu kër liñ ci gën a métti mu ne da koo jënd bu fekkee da koo jënd da koo jënd la nee na un million cinq ko jëndee moom mi ngi si buntu kër moo wax loolu léegi jaay nan ko lampadaire yéen indi am na ñu ko siy jaay fekk ñi ko yëg war a yëg yëguñu ko dañ ko yëg fekk ñoom ñoo koy dañ ko bàyyi gis lu nekkul yoon ku ko mën di def taxul nga nekk nga nekk si yoon bu ñu demee nag ba gis ko ci bundu kër Moustapha Niass wala Moustapha Diakhaté man mi nga xam ne li may représenté bëriwul loxo bu gudd wala wecce tax mu am ci lamp yooyu loolu teguwul fenn parce que éclairage public ku ko xam bu dee luy dox ci Sénégal la ñun ñoo koy fay bu dee lii la sunu alal la kon loxo bu gudd ak euh, loolu warut a mën a tax nga koy taal ci sa buntu kër ñun ñëpp ñoo ci war a yem. ak njuuj njaaj mi nga xam ne ni jàpp nañ ne am na ci lampe ADER yi nga xam ne nguurug Sénégal da koo jagleel askan wi ñoom ñii di ndaw ñi kat jéem nañoo jokkook waa mairie bu Touba waaye ñii di mairie bi ne nan yëguñu tinuñu. saisir nañ mairie jot nañ ki nga xam ne moo yor communication euh, bu mairie mu ne jot na Abdou Lahad Ka Abdou Lahad Ka bi mu ko ko waxee Lahad Ka daf na ko est-ce que loolu wóor na loolu de bala maa gëm ne wóor na dangay ngay doxal sa bopp ba egg fa moom mu dox ak boppam ba ñëw fii woolaat ko ne ko maa ngi fii lu wér la mu ne ko dinaa jéem a jot ki jot euh, ki ki yor lamp bi nee na mi ko doon woo jotu ko nee na euh, àgg na ci sax ba ne dina dina dina jéem a jot ministre bi ñun loolu lañ am comme information léegi nag ñun ñu ne bala muy egg fenn duñ lijjanti sax kan la kilifa la ak ko mën di doon dañ koy dénoncer bañ xam ne li ñu def di yoon parce que ñun asalem li ñu bëgg mooy ku ñu leeral suñu tali bi loolu lañ bëgg buñ sukkandikoo ci seen i sax ne nan ñi nga xam ne nii def nañ ko ci seen i buntu kër kët nee nanu loxo bu gudd ay lijjanti moo leen ci jotale loolu nag tax na ñu ne ñoom kët feek indi ñu leen ay leeral ci làmp yi fas nañu yéene teg ci seen bakkan lamp yi du tàkk mukk ci koñ bi. Daaru Xudoos ba ëllëg amul lamp ñu ñëw si buntu kër ma sàmm xaw ma dem dafa def ay lamp yoo xam ne da koo jaay mujj mun a wax ji mun a boo amee loxo bu gudd loo bëgg am am ko dégg wax boo amee loxo bu gudd loo bëgg am am ko léegi nañ la wax loxo bu gudd boobu kan la. waaw ñun moom bëgg mooy lamp yi moom dañuy wax ci njëkk ak teraanga moom lañ njëkkee waaye lamp yi li ñu fas yéene mooy du fi tàkk parce que li moom la kon ñëpp a ci yem xeex bi nga xam ne nii nag naka jekk ndaw ñi ñu ngi koy xeex fii ci HLM ñoom kat ne feek amuñu liñ bëgg itam duñ ci masa deltu gannaaw duñ ci tàyyi non lu tax ñu bàyyi waaw tout le temps ñuy ñaxtu rek xañ na yàgg-yàgg tamit buñ mënta danañ gis lu mas a gis buntu boo xam ne dana fexe mu saafara waaw waaw chef de quartier bi teewoon nañ moom kii euh, Baye Papa ay yoon yoon saa ñu loo mën a gis lépp lu war a def si citoyen war a def rek def nañ ko lépp lu war a def si voie normale def ah, ñu wax nee instant ñu ngi ñu ngi waaj benn boo xam pour ñu ak ñoom la den woo seen délégué yi pour ñu def si yeneen jéego. mbir mi nag mbir la moo xam ne nii lu ñuy ànd ak askan wi topp ko ba xam. nag lan moo tax lamp yooyu ñu koy gis feneen foo xam ne nii bokkul fi ko taxan a jóg maanaam leeral askan wi mairie bu tubaay yëg na wala yëgut seetaan na wala seetaanut lu ci mën a am ñoom dinañ leen tàllal suñu micro laaj leen ba xam mbir mi ban taxawaay lañ leen ci am ak yan leeral lañ ci mën a indil askan wi. ci fàttali rek mooy lampadaire yi nga xam ne nii nguurug Sénégal da cee wut ab ngir jàppale ko yi ci éclairage public waaye fii ci Touba nag buñ sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyeekoo na fii ci askanu alieu rawatina ndaw ñi làmp yi kat niñ koy séddalee teguwul ci yoon